salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñuy topp ci internet bi rawatina ci chaîne bu muy Serigne Djily TV ak ci TikTok bi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di baal xaq ñu ngi koy baalu ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak tawfiq ak saadatu daara yi ne ñu ngi koy sàkk ci yéen mbokk mi yaa may laaj lan mooy nit ku bon bu ko wolof dee wax lan la ci jublu danaa la waxal aslëf nag ci lan lañ jublu ci nit ku bon bu ko wolof daan wax daana ci fay ma daana ci far mayale ab tegtal boo xam ne bokk na ci lim mag ñi daan jëfandikoo nit ku bon nag bu ko wolof di wax mooy ñaare koo xam ne jigéen joo xam ne ñaare lu am mu faatu maanaam doom ji mu fa am ab diir rek mu daal di faatu loolu nag am na ñoo xam ne dal na leen ba léegi sax am na ñu muy dal nga xam ne mën ngaa tegale ñett ba ñeenti doom ñaar kenn du ci dund loolu nag mën nay amee ci nga am ci ab takk nga xam ne ñaare saa boo feralee rek ab diir nga gis mu faatu wala am na ci ñoo xam ne buñ demee ba ba muy jàng dox la lay faatu am na ci ñoo xam ne buñ demee bay jàng wax ak yu mel noonu lay faatu loolu nag lu mette métti la ci ci ci ci ci ci ku dal am na ñu am naa ci koo xam ne sax lu mat juróom wala juróom-benn doom la am xam ni kenn dund ci ci juróom-ñaareel bi la soog a taxawlu wala muy wax nit ku bon nag ñaare loolu la koy tudde wala ku bon le maanaam mooy koo xam ne daal doom ji am wan ko ginnaaw loolu nag mag ñi daanañ ci def lu ñuy tudde ay dot dot mooy téye xale bi ba dootu fi ba ba mu dund. loolu mag ñi daanañ ci jëfandikoo ay tegtal yo am solo ngir téye ko xale bi bu bu juddoo loolu ñuy tuddee dott dott nit ku bon loolu nag waraloon na ba ñaari tur yi sax ñu ko ñu leen ko daa ñu leen ko daa tuddee koo xam ne dafa bon le ñaare bu masaana am doom am na tur yi ko daa tuddee ngir gàtt nga moo mën a toog yooyu bokkoon na ci tur yi ngay faral di dégg sagar ci tur yooyu la bàyyi ko ak lu ñuy tudde kenn bëggul yooyu yëpp ci tur yooyu la bàyyi ak lu ñuy tudde amul yaakaar wala ñàkk yaakaar yi yëpp ci tur yooyu la bàyyi ak xeet wu nekk nag ak tur woom koy tudde waaye yii moom ak yeneen yoo xam ne daanañ ko tudde xeeti doom yooyu nga xam ne dañuy tudd dañ leen di tudde tur yi ngir am ngir gàtt nga ci ñu mën a toog tegtal bi nga xam ne nag maa ngi la koy may te mu bokk ci yi nga xam ne mag ñi daanañ ko jëfandikoo bu fekkee koo xam ne dafa bon le ñaare lum am mu faatu dang koy bindal ay bi ñu tudde warada allahu lazina kafaru bi ghaysihim lam yanaalu xayran wa kafa allahu almuminina alqital wa kaana allahu qawiyan aziza laay ji koy bindal saafara lu mat juróom-ñaari yoon wala juróom-ñeenti yoon bu ko defee nga boole ko doju dënn doju dënn mooy xeeru tiim ak jaaru xaalis ak benn kemb benn doomu kemb benn doomu kemb euh, gerte xam nga gerte am na ci xot woo xam ñaar lay def am na ci woo xam ne ñett lay def bi nga xam ne mooy def benn loolu la ñu tuddee perb kemb bu ko defee nga wut semmiñ maanaam weñu semmiñ moom it yooyu ngay boole tàmbal ko ci saafara si. boo ko defee nga defal ko xale bi mu sangu ci bis ba bis bi del si bis ba bis bi del si maanaam fekkoon da ko tàmbale altine da koy sangoo ba altine ci del si muy juróom-ñaari fan yi bokk na ci tegtal yi nga xam ne mag ñi daan nañ ko defal ñi nga xam ne euh, daawuñ am wala boog luñ am mu dem ñaare soo ko ko defalee ak yeneen tegtal sax yoo xam ne bari na waaye bii bokk na ci kon bokk mi ci gàttal rek loolu la ñuy tuddee nit ku bon Euh, wolof loolu lay tudde nit ku bon bokkul la nit ku bon comme ni nga ko xamee nii waaye ñaare bu ñuy tuddee ku bon la rek lii lañ ci jublu euh, kon ñu ngi lay fàttali nga way di abonné ci chaîne bi di ko tasaare ndax bokk na ci li ko yëkkati wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.